billaahi barke alxuraan dama ci teg sama loxo bii ci guddi laa ko gis Balla Gaye ci quatrième étage dana taxawaat fii ci réew mi ba ñëpp xam ne Balla Gaye mii démb mu doon dee bëreeg Bombardier ak mii est-ce sax benn la dellu siwaat ñun ak yeneen jitaayu xam-xam damay wax saa su ne moo ma neexee rek ñu wane ko directement dugg ci waxtaan mhm. jaratul présenté mhm. waaye ba tey pour ñu ko xamagul mhm. mooy sëriñ xarit loo Njaay man nag sama xarit la ma daan ko waaye Njaay loo Njaay <laughs> waaye ndeysaan mooy ku baax koo xam ne dëgg-dëgg addunaam yëpp yëpp yëpp yëpp dëgg-dëgg ci eh, ñaan yàlla rek la ko def tey wax dëgg yàlla lépp lu nit am ci teraanga yi aussi jàpp na ci wax dëgg yàlla tey ñu seet si waa ko bëggee waxtaan ak benn yeneen i mbir sëñ maa ngi lay nuyu gars yi nañu namoon nañu la ah, asalaamaaleykum wa rahmatullah allahuma yaa wadud yaa asal ah, arsil majid afaalu lima rid arsaluka bi nuri wax ci kama lala arkana arsako suluka bi xudratika lati xadarati baa ala jaami xalxika wa bi rahmatika lati ursat kulli sa in laa ilaha illa anta yaa muqitu axis nii sëñ buur asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi lay nuyu te di la ziar waaw waaw maa leen raw nag maa leen raw bu baax a baax a na xat gi mooy tax rek émission yi bëree bëri duñ ko kii te itam du sit yëpp la ñuy nangoo euh, séqal waxtaan waaye wax nga wax ji mooy sama xarit nga démb la tey soog a ñëw bu fekkonte ne xamoo ma dëgg-dëgg ci lii doo nangoo ñëw di ma dékk sa micro ndax seen télé bi foyewu leen ko <laughs> waaw foyewu leen ko waaye ñu net na mën nañ leen lool waaw <laughs> ñëw ci mhm. ne ci moom. Mhm. ba ay mbiram sotti. Mhm. Gàmbi laa ko mujj a defee. waaye dama laa bëgg a wax ne xël wa day mel ne gaynde gu xiif juróom-ñaar fukki at daanaka tëdd di wut lu mu lekk amu ko nga ñëw waaxu ne da ngay ñëw bokk ak moom jotaay ngir nefanaan da ngay jullee da ngay woor noonu da mel. nga ñëw rek yee ko maanaam li nekk ci ay danse ci xël walaa ne la sëriñ bu dul sëriñ piir wala nga dem mu jaral la nga dem toog ak mag mu mel na Baye nga xam ne moom téeméeratam tegal na sëñ Fallou mii nga gis nii la daan muritu ñaar fukki at ak nàngam moo ma joxoon dëgg-dëgg sekkari xël wa képp koo xam ne bootoo ci mag bam ne la doxal nga jéem koo def boo muytu la daloon waaja laa lay wax waaja daa ñëw di dugg xëloon waa ndaw sa ne ko man de am na ñu ko fa duggal lu mat juróom benn nit waaye damay xëy rek du ma leen gis te ñu si ëpp sax fi ñuy jaar damay jaaxal maanaam maanaam ah, bëttu sàkket daal daanaka seen daal fi laa koy fekkaat mu ko jox ma ma dugg ko mu dugg ñetti fan dara xewut waaja xam ne kii mooy waaja ñeenteel fan ñaari fan mu génn mu fay ko xaalisam nee na jox na ko lu mat 6 millions yu tegal mm. moo tax xaloo boo gisee gars yi duñ man du ma sa faral sax di ci yaatal mooy xaalis ba muy laaj ah yaakaaruma ne ñu bari dañ la ko nangu ñax bu fekkee gëmuñu dëgg-dëgg sëriñ waaye xaloo moom amul ma dem te ñëw moom ndab la luñ def ñam ba mu pare dangay ngay ubbi lekk képp koo ko defal te def ko na mu ware bu soobee suñ borom yàlla lay feeñ bu feeñee loo ko wax ci buur mu def ko loolu mu amul sikki sàkk boo bëggee doon milliardaire rek société am daa daan mu bëgg mu jóg ak bu dee daa am ndaw sum topp weex la ba sonn ci mënu caa jot bëgg caa jot ak bu dee daa bëgg liggéey moom lépp looy bëgg daal buñ la dugalee xalwa juróom fan wala ñetti fan am na sax nag bu weer waaye su noppee lañ koy laaj buñ ko ko laajee ci saw tur mu jox ñu ko amul sikki sàkk gambi laa ko mujj duggee waa da ngay waaw da ngay sa bopp ñu bari dof nañ def taxawal ci mbedd mi xalwa lañ dugg parce que am na loo xam ne bu la feeñoo doo lekk lu am ruu da fa nekk ba génn lu am ruu doo ko lekk mu ko ci xanaa cere wala yu mel noonu waaye lu am ru doo ko lekk bis bu nag rawxaan taxawee jàkkaarloog yow waxtaan ak yow te mënoo dëkku rawaan wow mooy yow moom perte nga sa mémoire Mm. moo tax euh, xaloo yombut man na dama koy dugg li ma ko dugg war naa mat ya mi ngi bëgg a bari mm. waaw mi gàmmi daal laa ko mujj dugg yaakaar naa mm. mm-hmm. waaw nag dañ may jox lu ko jar de <laughs> waaw kilifa gu mag damay bañ a tudd duram kay waaye xam naa waaw jongante yi passé <laughs> ah. waaw waaw bugguma mm-hmm. kon sëñ bi dafa mel ni kon mm-hmm. euh, ñenn ñi ni ñu woyofale xalu képp sëriñ boo dégg muy wax woyafal xalwa wala sëriñ boo dégg muy woyafal ay junne naan man juróom-benn fukki junne lay àndal ak am naa nangam man ree sax damay jàpp fi ma toog gis nga saytaane xalwa ak junne képp kuy sëriñ bu am xam-xam jóge ci mag doon ko doo toog di ko di ko foye saytaane bis boo ko songee naan maa ko fi dàq yow lee nga jóge fi yow parce que nag buur loo bari bari doole mënoo të ñeen fukki nit ñu toll ne Balla Gaye loolu ma dañ lay santaane maanaam euh, euh, saytaane topp benn waaye nga ñëw tàqale ko waajooju ne la wér na yow ñu ngi ci yow kon seetaan it kenn du ko foyee junne ñi naan am naa ko bés bu ñu giseen junne dañuy faatu wala ñu paralysé man maa wax loolu ñi taxaw fi di ko wax. sama maam ji sama yaay daan wax ne kaay ma yónni la boo demee boo ñëwee moon la junne man loolu moom mi ngi sama deret li ma la waxee woon kere ne la fajum rawaan barki alxuraanu karim su ma doon bëgg a faji dof yomb na ma trop parce sama maam dafa faj ay dof yu ñuy lim naan la diw diw dem naa ci dëkk bu hmm. na ma bëgg fu a Kër a ko mu ne Luyaas Njaay ku ko jur mën ko ma Demba Ka la góor gi daw laxasuma ne ma sama maam jur sama baay dafa doxoon ba yoonu sagaram sa maama ko faj mm. yow fii doo fi ñaan foo fanaan fi gën a neex ci néeg ci néeg fanaan su neexoon di faji dof léegi parce que man luy xew damay tëdd dañ ma koy wan waaye bu ñu foyee junne wala ñuy foyee xëlwa wala ñu foyee saytaane junne yi ñàkk ñu fay da déet ñàkk ñu fay da kay danga dañoo toog jàpp seen jàmbur fee nga ne fii di ratatati wax rek waaye demal nga laaj leen nga xool déedéet jinne am na secret am na secret boo xam ne su ma ko jàngoon tey jàkkaarloo ak yow da ngay daanu fii léegi yow mii léegi nag ñi fi nekk di loolu ñooñu dañuy wut xaalis rek. dañuy jàng secret bi nga daanu léegi même billahi la si lu ne nga wax ko man maa ngi nii am na baat yoo xam ne mën naa la koo jàngal sax la neexee képp ku daanu muy dafa daanu ci làmb ja dafa daanu ci ab jël comme ak xasay di ñu jàng wala raba ko daan soo ko jàng juróom-ñaari ñoon ci nopp mu jóg sama maama ko def ma dem kala sama baay jàngal ma ko ni ma sama bàyyi woo boo ñëw mu jàngal ma ne ma reen bii ñu koy jëlee ci ngeer ku ko takk kenn mënu laa liggéey kuy làkk du la liggéey sama ko daan def jël ko noonu la ma jàngale jar yooyu su ma ko jaree sa nopp bi ak loola mën a daal nga jóg dem sa yoon léegi su ma jàngee dara nga daanu ma jàngale leen nga jóg ñu ne faj na la nañu bàyyi tappale yi sëñ bi waaw loolu ko bàyyi. sëñ loolu moom loolu moom dama ko doon ba tey neewoon naa la garab gu ma jàkkalool ba ci niimaa gee nga gis ne reen bi suñ ko jotee dagg ko ma natt ci sama baaram bii mën naa la wax la muy def niimaa te ñëpp a koy mënul dara mhm. geneen garab goo ma tuddal ci àdduna ma wax la ni ma koy nuyee garab moom nuyu bi weesul naam ñas naam lay garab gu am dégg ñas la sant gu am euh, gu lewet lay la sant loolu moom sëriñ Sepp ci daje ñëpp xam nañ ko waaye gum ci mën a doon su ma jàkkaarloo yoo xam li ma war a jëflante ak yow li ma bëgg def ci yow ko koy garab nag amul échec mooy ñaan gi alxuraan gi amul échec xanaa nga ñàkk jaar ci yoon wa waaye soo xamee dañoo wax ne dëgg-dëgg asrar ki ko xam dëgg du ci def muy échec par force la booy xool li am solo mooy sëriñ bi dëxañul ngir jéem a xam dëgg-dëgg lasaraar dëgg-dëgg garab boo ci defee mu mais bu dee da nga ko cofaatu nii kamaatara di dajale rek dem ci benn waaye mu jox la benn xaatim ne la bu ñu ko daggee dugal fii wala xëy na ma nga ñëw di ko déedéet. Oh, doo gis résultat ah, doo gis résultat ci àdduna nga koy jàng déedéet da nga koy jàng de man dem naa ba Casamance dëkk bu ñu jox Daaru Salaam Serif Euh, man euh, añ bañ ma tegal sax daa mel yàpp rëbb lañ ca teg xam na foofa sori na te it xam-xam danga ma fa yóbboon ba ma fa nekkee ay fan ba war a tàqali ko ka ma doon jox xam-xam ba mu ne ma jàkk ne ma yow mii de garaat ngay doon ci xam-xam barki alxuraan ji ma tiim waaye maa la loolu te itam la ma fa jëlee am may dégg ñu ne fi naan Casamance laa demoon ak fu ne demoon naa la ñuy wuti mi ngi fii man ma toog ci mi ngi fii ci biir barke alxuraanu karim. <laughs> waaw xam-xam dañ koy wuti. maanaam ñoom day ñoom de ah, lépp a ngi fi allo gaa ngi fii. yokk nangam sangam ak yi xànjar mën naa la ko woon léegi démb laa ci doon defal benn waay bu dëkk Gàmbi benn waay ko joxoon xaalis tey ko oto dem yoonam ñëwatul li ma ci def su ma ko tegee ci taal bi nii di ko di ko upp balaa man ñetti fan yow foo mën a nekk da nga ñëw fay borom mbaa bu soobee suñ borom nga demeelu xew moom ak lu mu bari bëri bëri su ma amee turam dagg xaatim bi ci àllo xànja dugal ko ci teg ko ci taal bi di wérd li may wérd ñetti fan danga nga ko indi même bu la ëppee doole fu fu mu mën a jaar dina ko indi loolu moom amul sikki sàkk su ma neexee su ma la koy defal yow yow buur dama naan la bu guddee loo gént gis ko wax ma ko li nga gént gis ko moom dana ko sonal fa nekk bu dee bu dee bukki bu a doon man naa ko loolu faafa laa leen di booleel bu ñu géntee gis ko ñetti fan ñeenti fan dañuy daal di jóg. <laughs> waaw baax na danañ la fay léegi. Ah, mhm. mhm. waaw léegi waaw man de dama koy faj moom. Mhm. waaw man moom yow sax xam nga loolu. man damay faral di wax na sax garab bi ma la jox moom ñetti fan. bu soobee suñ borom yàlla dootoo yëgati siti wéeragut nag da nga koy topp ba mat juróom-ñaari fan baa mopp ko ngir nga wér pelek waaye ñetti fan yi moom dana la wóor ne bu doon danga doon toog sa articulation yi bañ wala say wee di damm wala sa karaw di ruus wala nga am jafe-jafe man yu mu yolom wala nga jigéen mën a fex ba am doom wala sooy sëy doo yëg bànneex lépp siti da koy def ndax siti day wowal kanamu jigéen ba buy sëy doo am bànneex day waral góor gi ndoxam lewet day waral bu àndeek jabaram minute rek mu pare ca wala sax xelam du ci nekk am nu ñoo xam ne bu leen siiti jàppee dëgg-dëgg duñ seen jabar dañuy dañuy duñ bëgg a tëdd si duñ bëgg a tëdd si mukk très bien loolu lépp soo ko jëlee ñetti fan mu commencé tàqali ko ak loolu moom siiti moom man dama koy faj te ku ñëw mën naa la ko waatal mm-hmm. doo ko jël ñetti fan te woo ma ne ma tabarakallah amul sikki sàkk mm-hmm. siiti waaw waa jabet moom bokk ci li may faj ndax sëriñ su bari su naan mën naa ko faj ak asma ah dañuy wax lu leen neex mais asma sax pour nga faj ko ba mu gent buñ ci nax kenn nag yombul man mi waxee sama doom daa ma jéem ma ci dara dañ nit ñi wax dëgg rek te yàlla tax sama nijaay ji bokk sama yaay ndey ak daa jabet jéem ma ci dara Abbas Ndaw gi laa ko indi am na loo xam ne Abbas Ndaw ko moom ak ñoom seetewoo ak ñooñu mm. nañ leen ko bàyyee te li ñun liñ mën ñu ne ci jabet ku la mën ne ma la koy fajal waxut lu lu wér neexut a faj waaye man de du ma ko faj man. personnellement déedéet mukk man li ma mënu daa bari sax <laughs> li nga xam ne du ko faj. daa bari lool waaye nag ki ñëw laaj ma ko danaa xamal ne ko lii nekkuma ci donte téeméeri million nga ma jox. Mm-hmm. déedéet du ma ko faj. Mm-hmm. am na ko ma woo dem ak jigéen ne ma sama wujju xama lan man moom na dem yoonam rek boobu dee sax waaye na dem yoonam rek mën naa laa jox sax man fii ba 900000 ma ne ko boo ma joxoon 900 millions duma ko def ndax sa wujj wa nit la yow ngay nit mm. jotuwuma ak moom lu ma koy yàqaleeb sëyam te man am naa jabar te bëgguma ko ma tàggaleek moom su ma ko tàggaleeg moom tooñ naa sa jëkkër tooñ naa sa wujj yow nga am bànneex yow 900000 li muy jariñ mm. boo ma joxoon 900 millions du ma la ko ma naa ma yow bu sëriñ sëpp meloon na nga mën a ko nag da ngay giif mm. def lu bon baaxut mu ko su fi ñëwee danaa ko defal loo xam ne danañ danañ at booloo nekk benn. kon sëñ mm-hmm. mm-hmm. mooy liggéey bu bon. non du ma ko def. Hmm. a jox. billaahi li si barke alxuraan suñ ma joxoon téeméeri milliard barke sëñ Tuubaa du ma ko def. billaahi du ma du génneel kenn nit muy taxawaalu. yàlla suñ borom bi muy tëkk ñi nga xam ne ñooy jabarkat yi dana maa ngi tëkk ñiy tàqale ñaari diggante lu digg lool moo boobu la yàlla njëkk a utilisé. Mm-hmm. ma di ko def xalaatuma ko ci alxuraan laay ñaan. Mm-hmm. te jullit laa ku may dégg bay woo nga xam loolu du defal kenn lu bon. ku ñëw na ngir lu baax boole noob moom lu garaaw garaaw la sa jabar woon ginnaaw waat dootul maa yow danaa leen mën a boolewaat bu doon société dañ laa dàq mën naa leen boolewaat lu jëm ci wàllu nopp mën naa la ko defal waaye nag du ma tàqale moom. Mhm. déedéet du ma yàq man wax dëgg yàlla. du ma yàq. Mhm. wax waaw waaye wax naa la fee ca émission benn ba ne la. li may liggéey ci suratu sarax yi suñ ko booleeg tànn maanaam euh, xobi paftan ya ak ak ñeenti nen ya barke alxuraanul karim nit mënut a tëju tëju gu mënut a tijji te dootoo tëju loolu moom. waaw ah kay dafa bari am na ci loo xam ne sunguf dong laa ci jëflante yow juróom-ñaari reen la yoo xam ne bokkuñu garab guñ guñ guñ déparé ñu boole leen wal leen loolu bo comp bu tuuti sax nga ci laal jërul bari tijjeeku moom amul lu ni mel. waaw Ah, dama leen di xàmmee dama leen di xàmmee. wër ta waaw. Mhm. nit da ngay xam ba xam mi ngi ci euh, turaabi yu wala xawaa yu wala maanaam daal ni ma ko ni nga ko gën a déggee mooy ngelaw ak ndox sawara ak suuf. foog nga xàmmee nit ki tabixaam fan la nekk xam tamit rabam dafa bañ rey wala déet man ku ñëw ci man donte fayoo ma lu ko jar sax damay xool loolu ba pare bala maa jëflante ak yow. Mm. ba mu leer ma soog a ñaan ngir ma am li ma bëgg. consultation déedéet déedéet mën na maa déggante ak yow sax du jar nga ñëw bu la neexee ni may seet rek ndax man fi ne seet foo mën a ne ci àdduna dama lay seetal. Europe mm. ak fu mu a doon ci façon seet yi ma yor yëpp waaw man nag samay téléphone moom. <laughs> sëñ bi ah, amul secrétaire amul. sëñ bi a liggéeyloo nga liggéeyloo ba pare ngeen nekk ci sëñ bi heure boo ko ñëw sa secrétaire moo leen tegtal ba ngeen yéeg. waaye nag man maa ko jox téléphone bi ne ko tegtalal ñooñu. noonu lay demee ci ñëpp itam am na tam tey jii ñoo xam ne moom moo leen fi gii ba indi leen jox leen seen i bagage ndax damaa génnoon waaye nag moom existé wul ci ne man nit ñi buñ jotee woote moom lañu jot. ka nekk Europe seetaan sañ Xaadim loo di woote est-ce que bi la soxla man la soxla kon naa ko jël wax ak moom loolu looloo tax rek may téye téléphone yi moo tax du ma nelaw ndax boo bëggee boole fanaan di liggéey ci kurus wala ngay jàng alxuraan wala nga xëy bëgg na ci nit ñi dana doy waar waaye yaa ko opté woon wala yàlla na toolo ko. parce waaw man ma may jël wax dëgg yàlla. ab téléphone ma une def loolu. damay dégg sa benn sëriñ maan nit bu la woo nga teel koo jël du la respecté man ree damay jàpp sax. Mm. nit ki soxla la di la woo nga naan su ma ko teelee jël nañ bàyyi tappale yi te xam ne nit ñi ay nit lañ yàlla dafa fonk doomu aadama mm. kon doomu bu la wóoloo ba gis la di woo wuyu ko rawatina nag ki la xaalis suba mu lay waat di la yeex a jot loolu ëpp naa def. waaw sëñ bi li eh, man lu mhm. yàlla lay kese. waaw borom béjaa bi. Mhm. borom jaaro bi. Mhm. borom yet bi borom sangam borom nangam borom nangam borom nangam sëñ Xaadim moom boo loolu taalibi sëriñ Touba. <laughs> ndax sama première émission doon nañ ma wooye boroom fetal gi. ak fetal la goo xam ne dama ko doon yor. am na benn xaatim bu ñuy def ci bunt bi pour taal nit mu tàkk. taal gu rëy la nag <laughs> secret bu doy waar la. waaw moom moo indi balam ma jël bal bi sox ko jël secret bi dugal ko dóor ko ma secret bi tas jeex na adduna moom bu soobee suñu borom yàlla fu turu fetal àgg ci adduna saw tur dana fa àgg waaye dàqantal gi laay bañ ba kenn wooyatu ma ko. Mm. dootoo dégg ma ne suñu xaadim borom nangam moom ma dara xamal ma mooma doon taalib Serigne Touba te loolu sax moom ma xanaa ñaan ko rek mu nangul ma sama taalib mm. man Serigne Touba rek laa gëm. waaw waaw man man Serigne Touba rek laa gëm moom laa bëgg. Mm. mboolem nag ci adduna ci réew mi reconnaître naa la bëgg la fonk la rawatina waa kër si Daji Malick mm-hmm. sëñ Moustapha si dama ko bëgg ba ñëpp xam ko mm-hmm. waaye nag man sëñ Tuubaa laa gëm waaye daal ci mbirum émorite buur mm-hmm. bëgg naa nit ñi bàyyi ci xel ndax man émorite nu mu la mën a dale ak lu mu mën a yàgg yàgg yàgg yàgg kon jeex na billaahi wallaahi lazi laa ilaaha illaa ak garab ga na mu demee. waaw barki Cheikhul ko. da mhm. waaw waaw waaw moom na yàgg na waaw. waaw mais garab néew kattan. yor nañ ci garab yoo xam ne nit du ko jël di am looy sikki sàkk. waaw néew dafa doy waar moom ndax uh, kër dafa war a doy dafa aram kii bi voilà jub sa jabar daal cay gaaw a pare wala sax sa xel du ca nekk wala sa sàkkara du dëgër loolu dafa nekk problème yoo xam ne lim lëmbee naa duna garab yi ñu lay jox na nga di ko booleeg meew soo ko jëlee bu soobee suñ borom yàlla danañ la laaj yow fooy jaar te itam traitement laa yor man yoruma calmant moom da nga koy fan. yu néew juróom-ñaari fan rek. après dootoo jeex na mu raxas sa deret ba mu set wecc dëgëralaat say siddit jeex na nga dem sa yoon. déedéet noonu loolu baaxul lool calmant la. après mhm. euh, waaw waaw de loolu lool loolu sax loolu sax saa yoo booy sël jël ko nag ñàkk nga loo xam ne xamoo ko woon. Mm. subaa booy sëyaat da nga gën a perdalaat nañ ko moytu dangay faju traité wu ci garab gàncax wér pelek moo gën calmant amul solo. waaw calmant amul solo. Mhm. waaw réew mi de dañ naan sax li fi mag ñu baax ji tëdd ak alxuraan di fi noyyi wala yu mel noonu moo tax xëy na réew mi mel nii waaye boo moytuwul kon yàlla bu yàlla def def dara de ndaxte ni nga xam ne mystiquement ñi ngi koy jëfandikoo ci élection yi moom loolu moom neexut a sax jéem a wax am na ñoo xam ne sëñ bi li ñemee def ngir mystique am na ci koo xam ne sa woon na waaye man du ma ci ne di yaatal ndax man damaa dégg xam ne moom laay wax waaye lam ma jëfloo man damaa yéemu sax ci yàlla mystiquement nga xam ne fi ne guddi ku sa bopp woyof bay ba nga toog seen kër. ba jàll jàll. waaye ku ko defut ku nekk musiba mën na laa dal ci mbedd parce que mystiquement maanaam naa ci jot donte bakkan bi sax lor na mën naa jot ci lii man gis naa ko fi. kon nañ def attention bu baax a baax te nguur xam ne nguur jëru ko. waaw na nag waaye waaye nag euh, niñ ko doon séentoo mën na nee bañ a demee nag. Mm. comme deret yu tuuri rek dee ak nangam yooyu yëpp moom euh, man gisuma jàmm rek laa gis wax dëgg yàlla. Mm. te it moom laay ñaan daal. waaw coow moom dana bari lool moom waaye nag jafe-jafe yi man na ci am de. waaye xëy na nañ ko ci séentoo dëgg mën na ne bañ a demee incha allah mm. waaye nag nañu daal daal te xam ne nguur moom yàllaa koy joxe bu nguur amoon njariñ Abdou Diouf du fi jóge Senghor du fi jóge Abdoulaye du fi jóge mooy booy moom ñu hmm. ah, day euh, moom xam naa la <laughs> ma dama bëggoon rek sax bañ a sori ci biir ñoom daal waaye man daal séen naa ko ci. bu man sama sañoon dana def attention tout daal wala buy jëlaat adversaire ndax maa ngi doon dégg sax ay mbiri Balla Gaye hmm. dégg naa ñu ne ñaari defet la la tegale waaw ah, nee ko na na na xoolaat beneen côté waa waaw foofu nag laa ci yem waaw ah, ndax man am na lu ma gis ci Balla Gaye bii ci guddi rek barke Cheikh Ahmadou Bamba ak alxuraan jiima tiim barki rasulullah ci trois quatrième étage laa ko seen mu mu toog di def ak nit émission nii di ko wax ne waxoon naa leen ne man Balla Gaye jógee gu ma fi ay jafe-jafe ak i sot rek lañ ma sonale waaye xam nga ne man du ma mbër du ma mbërëntaan laa Sénégal gi ñëpp billaahi barki alxuraan dama ci teg ma loxo bii ci guddi laa ko gis Balla Gaye ci quatrième étage barki xaadim rasul dana taxawaat fii ci réew mi ba ñëpp xam ne Balla Gaye mii démb mi doon dee bëreeg Bombardier ak mii est-ce que sax benn la. loolu maa la ko wax te nañ nañu fi dégg bàyyi. jërëjëf waaw boo ñaan jaar nee moo gën a wóor. na xanaa ñaanal jullit yëpp rek jàmm di ñaan ci réew mi jàmm di ñaanal sunu wayjuru góor yàlla euh, fëgg boppam ndax daa xaw a jagadi di leen ñaanal yéen ñi seen mbir mi yàlla na dem ba doon télé bu raw bu raw télé yi ma fiy dégg yëpp ci daraja sëñ Touba yàlla defar seen mbir te defar suñuy mbir te def suñuy post dara wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh